mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd ak bi ngeen ànd ak seen télévision Thiès 24 comme ni nga waxee rek ñu ci xam ne mooy période Korité te bu ñu Korité nag ne tëyër ku ñu tëyër nag ne tabarkaala wax li xam te mooy sañse te ñu fi am nekk mooy ci marché bu mag ñëw seet tëyër bu mag bi xam te ni Thiès dañ ko bàyyi xel Sénégal dañ ko bàyyi xel ñëw waxtaan ak moom ci ñaw yi waxtaan ak moom ci modèle yi nga xamante ni ñoo gën ren ah dañ ko bàyyi rek mu nuyu mbokk téléspectateurs yi xam te ni ñu si daan Thiès bi salaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sa cameraman bi ak waa seen 24 yëpp tur bi nan la Abdoulaye Wade Wadist Couture. Wadu Couture. Wadist Couture. Wadist Couture. waaye depuis ñaar at Abdou Lakhat yaa ngi ci tey yaa ngi ci bi. waaw maa ngi ci def euh, dix huit ans dix huit ans bi ñu tey. waaw mun nañ xam fan nga commencé ba tey ba nga am na nga am tey. waaw commencé ci emprunté doon emprunté yàlla dogal ñuy emprunté wu ba tey ba bis ñëw ñu ber ñu ñu qualifié jox ñu suñu diplôme ber ñuy ubbi suñu atelier di doxal. macha allah nag jëm ci wàllum suñu diggante Korité des li xam te mooy benn fan tey yow en tant que yow na ngeen koy préparé ak na ngeen waaj xam te koy préparé bu baax a baax baax a baax malgré que dëkk bi li fi nekk ñëpp gis nañ ko dëkk bi dëgër na xaalis amul dara amul waaw mais tamit Sénégalais ay jàmbaar lañ di leen def tout ba man a feetu feetu bu neex waaw malgré que dëkk bi amul xaalis waaw mais diggante daaw ak ren ban moo gën dox ban moo ban moo gën a nekk en diapason waaw loolu nag day jafee kii parce que depuis corona bi ba léegi waaw gaa yi nekkagul nekkagun jëlagun rythme bi normal waaw loolu moom dina xaw a jafet mais mi ngi ñëw ndànk-ndànk mhm. waaw ren xaw na am changement tuuti entre ñaw xale ak ñaw mag ban moo gën dox moo ah. a nekk en forme bu dee corté moom a bari ñaw xale moom mooy gën a bari mhm. ñu bari dañ naan corté feetu xale la feetu la mag ñi dañuy préparé seen bopp pour tabaski mhm. mais est-ce que yéen vraiment gis seen bopp par rapport ak ñaw xale ñaw xale yi waaw ñaw mag ñi waaw non ñi ngi ci mais xam nga boo bëggee ñaw xale bu baax daanaka li def ci ñaw mag ngay def ci ñaw xale mais nag nit ñi duñ comprendre loolu nombre de métrage yi rek moo leen différencier mais bu dee qualité ñaw bi benn rek lay doon. yan xeetu modèle ñoo gën ren ji. waaw bu dee yu góor yi moom ñi ngi fan nekkoon aboisane soo costume africain yeeg yooyu waaw. foofu daa ngeen gëtal. waaw foofu prix abordable wala abordable. waaw prix moom baax na am na yoo xam fii boo ñëwee am na trente mille am na vingt cinq waaw aca mbokki mu ngi noonu mu nekk xam te ne mooy What Is Couture ba tey mbokki dañu gën a xuus dugg ci biir gën leen a won ñi nga xam te a won te ni moo génn été bi nekk 2022 léegi-léegi mbokki incha allah bi ñu ànd ak yéen dugg ci marché bi gën leen a won xam te nekk mooy modèle yu bees yi léegi-léegi mbokki yi mbokk yi ba tey nii la ko waxee rek ñi xam te nekk mooy spécial Korité tey na ñu fi am ci marché bu mag dem ñoo xam te ku ne korité wax téere yi ci xeetu santé yi xam te ni tabarkàlla ku ci nekk rek yaa ngi xool nooy fësee la sa bos ku ci yaa ngi xool nii génne sa bos maa ngi fi waa ji tabarkàlla dama ko a baax mu wax man nan la dul xam eh, waaw jëm ci wàllu korité Mbacke nan ngay waajale korité en tant que téere waaw korité koy waaje en tant que téere fi ne booy xool ñu ngi sax ci finition yi ndax dem nañ ci moment bu mujj bi phase bu mujj bi ñu ngi ci mais niñ koy waajee rek mooy fexe nañu daal ba képp ku fi ñëw rek satisfaire nañ la selon ni nga soxlaa rek defale la noonu quoi. ñu ngi à fois ñëw ya tardé ndax ren jël ngeen par rapport ak loolu. waaw waaw loolu moom yàlla dogal na ñun dañ koo mas di bàyyi xel. waaw ñëw yi moom toujours moom ñun dañ cee mas di veillé vraiment wax dëgg yàlla ku ñu xam xam ne moom. tardel ñëw moom bokkul ci suñu mbir malgré tout nag dana am pareen saay waaye saa yu amee rek day tombeek ak ndogalu suñu borom mais du nekk lu ñuy sabab lu moom wax dëgg yéen seen ñëw pare na avant boobu wala fi ne nii may waxee ak yow nii moom ñëw yi moom pare na ñu ngi ci xaar clientèle bi pour ñu jël si ko waaw mode yan lay ren ji ban mode moo génn waaw mode bi nag moom soriwul lool sa parce que li ëpp bu dee ci góor ñi fil à fil bi lañ jël moom lañ gën a ñaw sa parce que korité comme ni ñu koy waxee dafa xaw a nekk feet goo xam ne feetu xale yi ñoom lañ siy bëggal mais bu ñi tamit maanaam génn ñu ci diggante basin ak brodé mais liñ gën a jël daal te gën ko jël moom fil à fil bi la moo nekk tendance quoi. wàllu clientèle bi ban mooy gën a ñëw jigéen bi. waaw waaw li ëpp si clientèle bi tamit booy xool ci côté góor ñi la pour le moment quoi c'est parce que jigéen ñi ñu ci bari budul xale yi maanaam li si ëpp tabaski la a nekk en moom ñoo gën a nekk au diapason Korité moom feetu xale la moom comme ni ma la ko waxee si départ bi. jafe-jafe yi par rapport ak eh, eh, te eh, liggéey bi jafe-jafe yi ñu jànkonteel waaw jafe-jafe yi moom taxu koo bare xanaa ndax day coono àdduna yoo xamante nii mook àdduna ñoo ànd boo ko sonnul loon fii tamit sonn ko ci leneen liggéey nag boo gis nag moom am na ay lu neex am lu naqari mais lu naqari li da nga koy jël dugal ko si biir lu neex li rek pour nga mën a dem quoi diggante daaw ak ren ban moo gën dox waaw waaw waaw soo ko xoolee nag c'est parce que daaw day fekk boobu ñuy doog a jógee ci Covid maanaam namoon événement korte googu doxoon na lool mais ren jii tamit ñàkku la dox wax dëgg yàlla waaw sant nañ bu baax daal sa client la nga leen di wax ak ba message nga wax ñaanal mm, waaw d'abord di wax client yi moom vraiment wax dëgg yàlla di leen souhaiter fête bu neex a neex di leen ñaanal tamit jàmm ak fépp fu client nekk rek ak fu mu ñawloog fu mu doon rek ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal fête gu neex ja Thiès 24 tamit vraiment ñu di leen remercier ndax seen liggéey ñu ngi koy gis liggéey bu yaatu la ñu ngi leen di seetaan fépp vraiment wax dëgg waaw acca mbokk yi mu ngi noonu mu nekkoon eh, téer yi xam te nag tabarkàlla ñoo ne amoon spécial téer yi jëm ci wàllum korité acca mbokk yi mu ngi noonu eh, lu nuyoo tàggatoo tàggatoo jot na ci télé bi gën neex nga an ceek lenkoon naa bu eh, Dija Xaalis Babacar Gueye ci caméra bi xam te nag mooy Matar moo newoon ci caméra bi mu ngi noonu mbokk yi amal leen dikk du am solo ci téer ak mode yi nga xam te ren ji ak téer yi nga xam te allah nu na jël engagement rek amal ko pour ñaw yi mën a jaar yoon liggéey bi mën a jaay kii ku ci nekk wax na ku ci nekk def na li xam te moo ci war a ci mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi nga ànd ak seen télévision Thiès 24 ci kaddu gi Babacar Gueye Dieng feggoo mata ci waru xarale gi mbokk yàlla bu am jàmm ku am jàmm nga am jàmm yàlla am jàmm jërë ngeen jëf